ok xoola des na de piki ni yéen kaay liggéey garaaw bu ko bu ko bul lii ba pare nañ lii rek des bu baax kay eh ñaar ñii mosunoo bëre ok nuyoon auzu billaahi bismillaahi inna waliya Allah waa salle bi yëpp

bëggee armée maa ngi lay woo surtout yëmbal bi ma dëkk. Mm-hmm. di leen a baax moo jàngaluma leen seen métier mais ñun dañ dañ ñoo jàppee mbëri ndaw benn duñ mbëri ndaw. ñu ñu ngi jégalu baal leen ñu baal leen ñu ngi jégalu ñoo dafa seer. dëgg la baal dafa seer te kase tolloowul. dëgg la ñu daa am ñoo xam ne dañ ci mën a jàpp suñu supporter mën a ñëw. xoolal man paa yi la rek paa bu ñu fi nekkul man dama koy seer mais bu fi paa yi toogee xam nga damay complexé mm-hmm. garaawul waaw <laughs> lu jotaay bi neex neex neex neex mbër yi ñoo leen fi a ñëw ah signature bi bu nekkee ñeneen ak ñeneen a fi ñëw kon nit ñi duñ toog di seet. dëgg la pas ñoo xew te eh, sama waxal sa wax bi moo gën day wax fii gërëm hmm. ñëpp. armée ngi woo ñëpp ci làmbam ji. xaaral ma ñëw kaay. waaw ah, c'est tey verre yi. ma sérieux quoi. ma sérieux. ça yaa ngi ci jàmm. di sant yàlla julli si yonent di gërëm way juri bu baax. Hmm. di nuy ñu fi teew yëpp mbëri yi suñu mag yi mbëri ak suñu gar bu baax a baax di la gën a ah, ah. sama kilifa Abdou Aziz Aara Ndiaye baax di ko ah, a baax di wax mbojo mbojo yi wax nag dama amul seen jot ndax damaa ne si combat <laughs> sama doomu lay xale mm. Issa dafa ma dugal regroupement xam maa ngi regroupement si Diouf Ndiaye ñu may jox may coom nice di lekk di nuyu Cheikh Saw di nuyu waa kër gi yëpp ma bi yëpp maa leen ziar di nuyu suma xarit sama sëriñ Abdallah Diouf maa ngi koy ziar baax di ko jox wàcc waayam sëñ Géré si la maa ngi koy ziar moom tubaatul di nuyu aussi tur reefan di nuyu sama këstu la mi ngole mandal maa ngi koy ziar baax wax dëgg otoom la taal andi ñu ñu Yuusu Samba Loobe xaritu Jaw di nuyu Père Diaw na bu baax ah. Diaw fa Nder xaritu Diaw xaritu Père Diaw waaw xaritu Père Diaw maa ngi koy nuyu bu baax Père Diaw maa ngi koy ziar di ko jox wàcc waay di bi moom a wax tey parce wax dëgg yàlla ah. gàkko demi moo ma sauvé waaw jour tabaski damaa lekk yàpp ba sama biir fees mu ne ma nañ dem diine ma ne ko mënumaa dem diine ndax sama biir dafa fees kaay ma wax la jour tabaski ma ñëw mu jox ma kii man naan ko sama rek rees ma dem dîner liggéey ba 19 heures ma ñëw Lamine Golo yamatu si dégg loolu jënd chaque entraînement day jënd benn kees ñëw jox mbër yi dañuy contact ba 20 heures duñu sonn Cobra Sénégalais xam leen Cobra baax na wóor na sell na wulee fa jaar ak asumaan boobu nduku man eh. ñu ngi leen ziar wax ne moom ñëpp mën nañ seede di leen wax ne ngeen gën a jàpp si làmb yi gën ñoo jàppale si biir yi ngeen ñuy woo woo leen bàyyi direct ngeen jox xaalis bee mu jënd bee ak Babacar Ndiak léegi a maa a mobiliser mën maa ko doole hmm? yaa mën yaa bu doole maa mën taxoo ma sox jug armée barke arwaan su ma defee yow taxawal loolu yaa mën te lii nga seet négocier ma jàpp la daal naa boo négocier ma duma la daal tapet amul si làmb da ngay sóob ko doo gis ku man du ma gis ku doo gis ku bu ko sóob ma dàll bu ñu defee arène du ma du ma du ma saaga sa bant yi dem liggéey loolu liggéey doo yow yow yow yow fu ma doon liggéey fa ngay nekk di liggéey foofu mbër liggéey tutu fa mbër mu ñemee liggéey xam nañ fi ñuy entraîné ne la ñëwal del gën a liggéey man ak sama mafia nga doon fa ñaar. ma doon duma sax xëy teg xalaatuma ko duma ne foofu mais maa la mën dinaa ko def. almet bu waxee affaire d'entraînement li may maa xalaat loolu. kay li may teg affaire de noobu buñ dajee ma duma la wane ma duma ma teg ngem ba xam ne duma naa la. mënoo ma duma déggoo ma la dinaa la duma ba xam ne doon wër lu nooy. yow dama ñëw adversaire ma ulloo maa xool ba xam ne moo gën a nooy ma jël ko. Armé man naa <laughs> ko tànn moo fi adversaire ma barke Alxuraan moo gën a nooy. yow kii kii kii daf maa minimiser. daf la waaw waaw xam nga lu tax. kii du woon yoon may bëreeg moom. mais waxam ju bëreeg tell tell ma ràjji ràjjam moo tax may bëre ci la lay daan kii am sa bokkuñu yoon gis nga man fee moo nekk sama place nañ waxante dëgg li fi ñii def laa fi def bi daan dëgg la nag xaw naa nekk tuuti jafe-jafe eh, eh, wax bëri ma ñëw bëri wax na dëgg non li ma koy wax na ci bàyyi kii waroon naa toog fee ba lamb ju la woon bëri nga gis nga mbër boo toll fi nekk ñëpp et eh, kii yéen yéen ñaar sore ngeen yéen ñaar benn ngeen dama ne damay jox bi kii dafa am bu ko dal si lamb xaw ma doon moo ko dal da doon bëri ay pas di daal ay pas bi mu si ay morom dafa am problème. Eh, eh, eh, non lan mooy seen problème ndigal ndigal. ndigal yow armeel ban problème ngeen am. problème mu dara ba xiif bëgg a daan dama koy daan. ma duma ko ba mu tëdd. yow soo ma duma ma teg sama ngem armeel mosoo duma mbër ci yow laay commencé kon. ci lamb ci yow laay commencé. wallaay dama ko xam baax dama ko yàgg wat naa ci yàlla jëmm jee li may teg su ma la dumawul na génn ci man. moo gënoon a bidee leer laa wax samay supporters yëpp xamuluy problème bi moo. moo moo. Mm. musta bëre ak moroomam daan yàlla xam na ni samay supporters ñoo bëgg làmb ji xam nga man. ah Tafa Tafa ngay génne leen ko ci de. Ah. samay supporters ko bëgg. te wan nañ ni dañ koo bëgg. Ah. billaahi benn baraag bi yëpp xam na ni dañoo bëgg làmb ji. kon man amatuma lu nga xam ne lekkuma ba suur naanuma ba màndi nelawuma ba doyal te armé nee na kuu dal billaahi wallaahi maa ngi lekk ba suur maa ngi naan ba màndi maa ngi naan ba doyal damay ne si live fu ne di waxtaan xam nga kii du ko fee man su ma nee jël combat fi ma toll si làmb kii doon sama problème man wóor ma nekk mbër te wallaahi ancien ba bi sufle moo fa bàyyi wallaahi ndigal yaa ngi waat heure. woote woote woote. ka waxoo rek. lii mooy waa alburax. foo nga wax boy man après xalaatuma la dimanche heure bi maa ngi sama kër si di ñëw fa may wax li ma neex bu neexee yàlla jooytu rek ma man damay wax damay communication bu taxee damay ko bii góoba du ma la tooñ du ma la saago du lu albisbal ma dóora du ma ko def acca man noonu laa lamb wax la woote lamb bëri la woote maa ngi woo ñi may jàppale yëpp di woo famille Alla Ndiaye parce que man am ma leen génn ñoom rek laa am waaw xam nga di woo Abdou Aziz Alla Ndiaye al amin di ko wax mu jàpp si bu baax hmm. hmm. tamit donte am na bis hmm. mu jàppale ñu ñu mën a pare ñëw concentré si combat bi jàppale ko xam di woo waa géejawaay yëpp di ñaanal guy gi yàlla defal ko jàmm ak sutura ndam xam di ñaanal mbëri géejawaay si bëri yëpp yàlla may leen ndam xam di gërëm ñi may jàppale yëpp si Abdoulaye Diouf am ma fayam waa are Papa Gueye Fall am seen fay ñoom sëñ Mbacke Fall Baye Sallou Ndiaye Pikine daam ko daam Ngom borom Pikine maa ngi leen gërëm bu baax a baax di gërëm ko may entraîné ko su maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñu ngi siy jàpp mbës am ma waaye ko dee Balla Gaye yëpp maa leen di gërëm mention spéciale xam nga di wax ne xaju fi moo tax maa daal as man as ndaw borom mbukku man ñu ngi koy gërëm di ko wax ne ñun làmbatuuñ xam nañ lan mooy Cobra bu baax a baax kii nag bu soobee naan naan ñetti Cobra tal ci wooteel xaar taxabul waaw maa ngi woo jiital su woo bi suma papa suma suma. Moustapha kilifa. Aliou Ndiaye maa ngi koy woo Martalia. waaw Aliou Ndiaye Martalia. wala ñu kon di woo sama doom laay wax sax musa Alga PDG Alga di woo waa Alga yëpp ñu ñëw taxaw ma ci làmb ñu ndax ticket yi seer na musa lu mu guddi guddi lu mu naaj naaj di nga ma gis bureau incha allahu bi ma ñëw nga jàpp ci ticket yi yow sama doomu turandoo nga. di woo ñëpp ñu jàppale armée di woo surtout su suma suma suma famille yaay suma famille baay ñëpp ñu may téyel kurus. Mhm. maa ngi leen woo ci làmb ji ñu gën a téye bu baax baax ndax waa ji waxam ji nii mu wax nii dina ko coûter cher de. deuxième may ma ma eggale ma ma woo ñi may woo suma mag Talla Diop jàppoon na ci làmb ji mais damaa bëggaat Talla Diop yaa ngi noonu toog dama bëgg nga nga luweel ay camion xam naa ni transport bi dina métti camion yi ma doon andi laa bëgg nga looy laat ma ko ci kanamu ñëpp laa la ko waxee. yëmbadi yëmbadi laa laa teg sa loxo nga luyal ma lool te te yàgg nga koo def te da nga def incha allah rabbi. incha takku nañ ba dëgër yow rek la ñuy xaar. ayca di woo. Eh, eh, kii may jàppale ci surtout surtout suma copain homme de tenue yi. Mm-hmm. ku ci mel ni Paul. Mm-hmm. jàpp na ci laamu mais dama bëgg mu jàppaat ci ticket yi. am mm-hmm. armée soxlaatul luñ ko jàppale ticket yi rek mooy problème ak transport. di woo Moussa bu Mbour douanier moom woo na ma am personne ne ma damay jàpp ci ticket ba ma woo Baye di ko laaj ticket Baye war ngaa wax ticket nag. pour ñu ci wax dinañ ci wax léegi. moom dafa ma laaj pour pour taxaw ma ci di woo Nafi mu jàppale ma ci samay ticket xam nga ma ticket rek la am problème ndax xam naa ne li na rajo jóg buuma benn mbër bu mag jiitu ma esaat ma duy turbini bëre bëre bi daan daan bi dem feete ji ko yëmbal incha allah rabbi di woo su sama rakk yi nga xam ne dañ maa sës di ma jàppale ku ci mel ni Pape bu ku ci mel ni non même ma woote rek lii rek lañ ci am eh, yaaye li nga ci am dafa bari amul sax dix cinq minutes waaye wax na ah. di woo képp kuy jàppale armée yow ngay teel daan doo ñëw daan dem ñibbi teel na ba sa bopp njëkk a bëri mujjee man lii problème bi mooy euh, combat bi yow ndigal sa wax ju bari moo tax man maa ko jëlal sama bopp du lool leer na mais xam nga ni man man man man ñëw ma fii di bëre di njëkk a bëre ñoom gàkku mi bàyyi mi woo naa ko wax ko ko. waaw loolu après da ngeen ko lijjanti ci seen eh, xam ngeen lan la xam ngeen lan la. man sama doom baay yëpp di leen woo ci combat bi Moutala Ndiaye maa ngi koy woo Mbaye Ndiaye xam nga ñoom. xam ngeen lan la xam ngeen lan la xam ngeen lan la. waaw maa leen woo di leen wax nañu ñëw jàpp ci combat bi. waaw bàyyi mu woote. sama maa ngi koy woo. waaw bàyyi sama loxo bàyyi sama loxo moom xam na li mu war a def du ma ko wax li a def di woo grand Youssou Ndiaye ak grand yi nga xam ñëpp ñu ngi taxaw di jaajëf di jàppale armée jaajëf maa ngi woo ñëpp ñëpp jaajëf maa ngi nuyu na góor bu fils de Balla jaajëf honorable dinaa ñëw sa kër instant yi lamb ji ak tabaski bee taxoon mënu maa dem ci eh, kenn mënu jàpp bi nag ñi muy woo bari na nanu ah dinaa dem ci ñëpp ñu jàpp ci eh, doy naa incha allahu rabbi jaajëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal jërëjëf ñu Mamadou nag ñu ñëwaat ci kombaa bu mag bi waaw waaye AS dama bëgg a jox Baye waaw